loolu du yoon sax ci moom baaxul que soit ngay bokk si gouvernement bi nga bañ bokk si gouvernement bi da nga opté pour am courant sa kër nga dem sa demande di jox la ko kon boo ko amee soit digne quoi nga nga honnête quoi boo amee facture nga fay ko boo bu ne coupé nga xam ne na la nga parce que boo coupure mais yaa opté pour am courant parce que nécessité la temps bi obligation kër gu nekk am courant la parce que da ngay soxla courant pour say say

Euh, yàgg na fi peut-être ak déjà yi fi jaar parce que man mënu ma comprendre da nga daan dégg ñu naan la ñi nga xamante ne ñoom dañuy liggéey Senelec euh, du ñu am na daal benn euh, am na benn lu ñu leen di may loo xam ne du ñu ko fay ci seen ay compteur de ce fait ñoom mën nañ il se permet ñu am seen kër def si n'importe quelle machine wala yoo xamante ne day consommer courant bu bari te duñ ko wax te yaxaar naa ne fi réew mi toll. am si ñoo xam ay cadre lañ euh, niveau parce que da récemment dégg ñu jàpp nañ sociétés yu peut-être ñu courant car bi ce qui n'est pas normal dem nañ ba épingle leen mais sooy xool dañuy ñëw def négociation euh, ñu bàyyi leen. kon yaakaar lu mel war na mi ci corruption parce que peut-être DG bi fi nekk récemment économie def nañ ay économie de 50 milliards yoo xam ne peut-être foo xam ne daan na senn la wala foo xamante ne ñoom daan nañ fa lekkay alal moom mu fexe ba loolu wàll.